kaay ma hello ma ne. hello. waa léegi xaaral ma dimbale la léegi. waaw nañ wax rek ci raful yi ay nit yoo xam ne dañoo def nangam. waaw waaw dafa am yenn net dafa am yenn network yoo xam ne. comme mhm. da ngaa jënd crédit ba pare. Mhm. ñu ne la nga teg. daal mhm. du ko diine du common sense yéen yéen ay borom xam-xam yi mhm. diine soo ko jàppee ne common a la yaa ngi mistake mhm. waaye man su common sense yi nga ma jox ne xëy def loolu leen na jënd clair bu pare nga teg ñu jël juróomi dërëm ci yow boobu daal daf ma njuru gambul boobu gambul la non boobu moom ma ne boobu moom gambul la ah, parce que alali mbooloo ma ne boobu gàmbul la alali compagnie bi mm-hmm. boobu euh, xam nga il faut li lii xew itam nature bi il faut ñu xam ko mm-hmm, mm-hmm. su fekkee ne charte bi nga doon defee xaalis bi mooy loolu loolu gambul la moom su fekkee dañ la charte ne pour pour pour pour nga am ko il faut nga def nangam su boobaa nag soo ko soo ko defee loolu gambul la tudd gambul nag dafa xaraam waaye even suñ demee bam xaraam ka ko wiin ci ngërëm imaamu Malik ajam nga wér na hmm. waaw ñoom dañ ne aj màkka maalul xaraam donte alal ju xaraam la aj ga ajug lislaam def nga ko wér na comme ku sàcc mbu bu jullee mu ngoog xam nga eh, waaw dafa am ute kon ma wax mbokk bi ne ko maa ngi koy sant ci information boobu mu joxe hmm. parce que man xamuma ah, xamuma néeco bi ni mu demee hmm. waaye su fekkee ne liñ wax mooy ku nekk defal nangam xam nga loolu dafa mel ni sa xaalis nga génnee mm-hmm. definitely mm-hmm. loolu gambul lay ah, tudd te gambul moom dafa xaraam mm-hmm. waaw loolu bokkut ak man na ma ko gisee woon non bi nga njëkk a ak bii du waaw duñ benn xaj ma soxna ñu ñëwee ci réew yi nga xam ne bàyyi quota eh, eh, waaw quota bi quota boobu waa soo ñëwee ci eh, OIC li ñu tëral mooy bi ñu demee ba gis ne màkk nit ña fay dajee dafa ëpp te dafa laaj contrôle liñ d'accord mooy réew mu ne hmm. million bu ne hmm. junne la hmm. moo tax maa ngi bàyyi xel jamono bi ma nekkee amirul hajj booba gàmbee mu ngi nekkoon one million walla wan tuuti tuuti million dégg nga waaye booba ñun ñi daan dem Màkka daf daan ëpp suñ kóota waaw mos naa lu ma bind leetar ministre of hajj pour ñaan ko mu may ñu yokkal ñu ñun suñ suñ kóota bi maanaam pour mu mu alaawu lu ëpp suñ koota bi mu mayoon ña ko ma mayoon ma ko ci jamono booba hmm. booba maa ngi ko ñaanoon eh, two thousand three hundred hmm. two thousand three hundred te booba ñun eh, one and a half million sax mataguñ ko hmm. waaye demoon nañ ba suñ ujaaj matoon na two thousand nangam dañ ñu ko mayoon waaye eh, ci ci loi ba ñun <coughs> waruñoo àgg foofu soo demee nag ci yeneen réew yi ñoom seen kóoto bi duñ ko dee maslaa mooy réew yi nga xam ne seen nit yee bare waaw xam nga ñun suñ nit ñi bare mm-hmm. eh, neex naa maslaa waaye am na réew yoo xam ne lay aji rek daanaka mën naa em ni Gambia waaw soo ñooñu duñuy ñuy maslaa ak ñoom mm-hmm. soo mu am ca réew moo xam nag eh, ren ñi war a aji ñi aji ñi ñi bugg a aji ñëpp dafa ëpp kóota bi mm-hmm. su ko defee ñi bugg a aji ñëpp dañ leen di dañ leen di eh, raful dégg nga So, so, so génnee doo mën dem man nga at mu jot nga dugg dem Kokunena manyari atengini? ma ñaari at a ngi nii yaayam di dugg ci raful bi du mën du mën du dem waaw So, beneen bi ma doon wax fii xajma soxna mooy eh, arrangement islam waxu ci dara dagal waaw xam nga ci mbiru administration islam daf ñu ko baxee parce que itam dafa am loo xam ne eh, yoonu daganal mbir mm-hmm. bismillah mm-hmm. bisimilah. Oh, waaleykum salaam wa rahmatulah. sant yàlla bu baax. wala affaire rafoul bi euh, gaa am nga euh, GSM yi dañ dee soo jëndee nangam soo jëndee hundred di nga am kër wala di nga am lii. Mhm. so léegi loolu loolu gàmbul lan daal waaw li ma wax daal mooy <clears throat> li ma wax man léegoo-léeg ma jot benn texte benn texte mhm. masalan ma ma ma refill suma mobile hundred dollars mhm. wala fifty ñu ne ma ñu ne ma del del del del del refill moo mhm. ndax nga mun a wiin kër masalan man suñ ma ko waxee suñ ma ko waxul man suma aajo la saa yi suma mobile bi jeexee masalan danaa dem refiir dégg nga léegi na in case man refiir lu ma pour pour ne damay damay boolee kii boolee kii de la may refiil suma suma xaalis la te man maa koy téléphoné ba mu jeex su fekkee ca loolu am naa ca kër loola dagan na ñaari mbir bokkul de eh, nit ki jënd créditam ba pare mm-hmm. ñu ne la texte ci xam nga loolu sa alal la fi ne ñu ne la texte ci maanaam jox ma ci juróomi dalasi keneen ñu ne wax la loolu keneen ñu wax la loolu loolu gàmbul la bokkut ak man bi may jënd suma suma suma suma crédit jënduma ko dama ko jënd pour suma soxla dégg nga soo kii di ma encourage pour ne naay jënd léegi man la nga waxi du tax du ma tax a jënd de man saa yu ma soxlaa laay jënd mm-hmm. in case nag su fekkoon ñi jënd ñi nga xam ne ñooy jëndkat yooyu dañoo dañoo rafuloon ci seen diggante mm-hmm. pour kan moo moom kër ga boobu dama gëm ne wala kër ga wala nàngam ja mm-hmm. dama gëm ne loolu wér na mm-hmm. su fekkee dañ la wax ne la joxeel nàngam joxeel nangam ndax nga boo mën a bokk ci nangam soo seetloo ñaar yi bokkuñ de crédit bi benn ko jënd ak crédit bi bi nga joxe kii dafa joxe xaalis duñ benn moom koy waaj leer la xaw lu tax soo ñaar yooyu bokkuñ ah, kii bi ñu di ko laaj di ko laaj xaw ma xaw ma ñoom luñ ci juble anyway ba pare tam du may yitteel itam mm. euh, ka koy def ak nangam ak nangam waaye li ma bugg a wone rek mooy mm. islam dafa wax ci lu ne mm-hmm. islaam wax na gambul léegi gambul na il faut ñu define ko wax mooy lan mm. gambul mooy saa yoo xamee ne mbooloo dañoo dajale xaalis hmm. di xëccoo benn mbir hmm. dañoo dajale seen xaalis di xëccoo benn mbir kenn am ñu ko jël ñeneen ña toog loolu gambul la waaye man bi may nit kiy jënd crédit am hmm. moom xëccoowul menn mbir déedéet moom dafay jënd crédit pour téléphone wala nangamati na waa soxla boppam soo yooyu dama gëm ne daal am na différent su fekkee tam xëy na am amul différent allahu alam waaye man noonu laa ko gisee daal allahu alam Mm. xaj ma soxna suñ ñëwee ci point bi nga xam ne moom laa doon wax mm. fi ñu waxee ne soo ñëwee ci ngërëm imam malik daf lay wax ne la euh, alal donte alal ju xaraam la mm. suñ ci ajee wér na waaye am nga bàkkaarab alal ju xaraam ja waaye aj gi moom wér na euh, loolu dañ ko sukkandi ci uute boo xam ne fuqahaaw yi dañ ci wuute wala usuli yoon yi mooy ndax jiha mun fakka wala jiha xayru mun fakka mm-hmm, mm-hmm. ñu ne bisimilah بسم الله الو الو السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله واو محمد سعد لندن اهلا وسهلا سار سار سار استاذ محمد سار ليس واو كنت نجي سار اها دين طالب محمد سار لندن دي دي ليغي دوتو طالب دي ليغي علي مان لا فوفو macha allah. oustaz maa ngi lay ziare bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziar. yéen ñaanal ci ji. jërëjëf bi am na interest lool. macha allah saar saar. ah comme li gars yi doon wax noonu rek ci affaire yi rapport bi. waaw. parce que ñun tamit ñu ngi toog fii ak eh, booy ñu ngi ko consultant macha allah bi ñu jógee jumaa rek dañu ñëw fii. Eh, di waxtaan mbiri diine. comme xam nga rapport yooyu yëpp ci réewi tubaab yi ci def ci dee am. ah ok waaye ñoom ni ñu ko doon defee mooy ne dañ la dee wane eh, am nañ price bi ñu teg like comme Gambie ñu ne teg nañ kër wala moto yooyu. Mm-hmm. waaye fi nga xam ne moom lañ am production mooy ne. Mm-hmm. ñoom dañ la dee wane texal so si na teg boobu yaa ngi wér sa xaalis ci ñoom soo ñoom instead rapport bi waroon naa nekk ah, ñu def ko like six to eight months. waaw soo diggante boobu balaa nit ñëpp di wax di teg every time every day uh-huh. so dañoo mel soo ne ñoom xaalis bi nga xam ne ne moom lañ teg wala cher bi nga xam ne moom lañ teg am nañ tabul am uh-huh. soo boobu la ñoo boobu at bi ausinaa bi nga xam ne tamit macha allah ni ki nga jënd crédit rek ñu ne la yow win nga lii fekk nekkul loo xam ne da nga teg uh-huh. boobu foog naa ne si islam dagan na waaw waaye bi nga xam ne ñoom dañoo jël si yow ten months wala eight months ñu ngi dajale xaalis boobu ba mu bëri. Mhm. nit bi eh, xaalis laa nekk si ñoom. Mhm. and then ñu ñëw final